salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina sunu mbokki internet yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel saa su nekk tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci sunu guddi juróom di juróom-benn rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon euh, kaafiroona juróom-ñaari yoon suratul ixlaas juróom-ñaari kon loolu moom mooy li nga xamante ni moom la leen indiloon ci suñu guddi juróom-ñaareel ñu yooyu ba tey rek di leen ñaanal kooru jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala